yan problème ngeen di rencontré foofu. problème étudiant moom mën naa ni pour cent problème bi étudiant mën a am ak koo mën ci doon c'est en effet le logement mais nous en fait dañu jàpp ne euh, le rôle des syndicalistes dafa war a dépasser en fait li nga xamante nii mooy loger étudiant bi jox ko ticket mu dem jox ko lii parce que le rôle de l'étudiant du syndicaliste ak en collaboration avec rectorat bi COUD bi yëpp mhm. ça doit être d'offrir à l'étudiant un avenir donc meilleur te si loolu si ay activités yu ndaw la ngay nit ki mën a defee par exemple tey on nous dit que la majorité des étudiants bu ñu génnee dañuy chômer par exemple hier j'étais en discussion avec des étudiants de la FST yu nekk L3 euh, biologie animale ñu ne ñoom seen professeur moo leen ne bu ngeen génnee c'est mort. da ngeen di chômer doo leen am liggéey da ngeen di chômer le professeur vous dit quand vous sortez de là vous chômez on est en train de privatiser l'enseignement supérieur à des masters. par exemple di ngay jël benn école bu mel ne euh, genre. non euh, jarul tudd école. effectivement voilà. Mm-hmm. donc dañuy privatiser. Mm-hmm. da ngay ab dem licence ba pare au lieu que genre ñu wutal la liggéey ñu ne donc il faut nga def benn master boo xamante il faut nga fay 1 million 200 ou bien 1 million 500 l' année. te loolu on est en de privatiser. l' enseignement supérieur